kaawoo. kaawoo. dafa kaawoo. dafa kaawoo. man tey ci Soso woo. dafa kaawoo. man tey ci Soso woo. dafa kaawoo may. tey leen ci Soso woo. Maodo dafa kaawoo. tey leen ci. ndeysaan président bi ñaari xale yi. arbitre ba soufflé na vite fait ak Sakal Sakal Sakal vite fait vite fait la ñu jàkkaar lool Sakal moo wan ginnaaw ña nga ca ñoom ñaar diggante Sakal ak vite fait ñoom ñaar ña garde la normal ñoom ñaar ña nga ca sàkkal vite fait Sakal ñaar ña nga ca sàkkal vite fait diggante Sakala ak Vite Fait ña nga ca ñoom ñaar Vite Fait ngi woon ginnaaw laa ilaaha illallah Vite Fait daan na ko Vite Fait bien fait Vite Fait noonu xale baa ngi noonu laa ilaaha illallah arbitre fee defati na affaire laa ilaha illallah fee ngi noonu bi mooy gën a métti bëri waxoon naa la ko waaw sama papa la lépp sama papa la barke Serigne Touba sama papa laa bëgg a fayam man nga jëm léegi sama papa laa bëgg a jàppale sama papa laa bëgg a jàppale si laam laam bu sama yëf xam nga ma laam bu sama yëf sama papa moo tax ma dugg si laam bilaay walaay taala waa lii jaxaay la rek Kaawo Kaawo Kaawo Kaawo